ki ñu dalal yaakaar naa ni mbégte la ci ñu toog ak moom ki ñu dalal moom la burgewal na alaaji sàppali waaye ki ñu dalal itam moom mooy mbokkum yaayu buuse këcëb ku ne miin na ko ak moom moo waral tey ñu fekk ko fii ci Seek Këcëb muy euh, place bu bees bi nga xam ni buuse moo ko fi tijji ñu fekk ko fi tey ngir waxtaan ak moom ci wàllu làmb ku ne xam na ne làmb fi mu ne actualité yi bari na mën nañu waxtaanee ay combat yoo xam ni fi mu ne ñu ngi koy séntu ci kanam bokk na ci euh, le 30 juin bi nga xam ni jëm nañ ko diggante Ama Baldé ak Gris waaye tam Ada Fass di fa bëri ak guy gi Liss Ndiago ki nga xam ni tey moom moo di Zos ak yeneen i yi nga xam ni làmb jëm na ko moom Fadam moom la rédaction bi amal jotaay ñu nuyu ko bu baax bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet di koy suivre. am na solo maa ngi wax baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu Sénégal gi yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura ak xéwal yéen ñëpp di nuyu bu baax di nuyu. ñaari chaîne yi nga xam ne tey jii ñoom laa jàkkaar loolu ba ñett yi nga xam ne nii tey jii yaakaar naa ne. Mm-hmm. seen liggéey ci réew mi moo leen yóbbu fi ngeen àgg. di nuyu sama xarit bi nga xam ne tey jii fii laa toog ci restaurant am. Mm-hmm. ndax yaakaar naa ne biñ koy dox boobu ba léegi maa ngi fi li tax ma nekk fi rek mooy doomu aadama boo àndeek nit. muy créer benn affaire bu baax. Mm-hmm. muy investir dara lu baax ci àddunaam. da nga koy da nga koy da ki ànd ak moom. yaakaar naa ne képp ku mës takk ngemb ci Sénégal. lii buusi këccëb ibbi ferte la ci yow. waaw képp koo xam ne nii doomu senegal nga lii buusi këccëb investir ci alalam ferte la ci yow bu dee nit ku baax nga. Mhm. ndax ci làmb la nekkoon ba dugg ci leneen lu bokkut ak làmb yàlla may ko ci teraanga mu ne lii ma am dinaa xool quelques xale yu toll ni man ma bokkook ñoom ñooñu di fi am salaire. di yóbbu seen kër di dundal askan. Mhm. wala di dundal famille. Mhm. kon bu fekkee ne dafa créer lu mel noonu dañ koy ñaan yàlla ko suñu borom àggali. incha allah yàlla na ci réussir. Mhm. yàlla ko ragal. yàlla nañu dem ba sekkee ca wër àdduna. lu war a mën a nekk la. am na ambition bi. xale la ku gëm boppam la nag. balaa nga xam ne ku gëm boppam la man benn seed rek laay def ci moom balaa maa dugg ci waxtaan wi. damaa ànd ak kii ci otoom. ñuy daw lu sori maak moom. papaam woo ko téléphone. Mhm. ne ko kër gi dama koy defaraat dama bëgg ñu daje ñun famille bi yëpp ñu woo sarak yi nekk bitim réew ku nekk génne li mu am. Mhm. ñu tabax kër gi defaraat ko. mu ne ko papa ba mu ne ko am ah, mu ne ko xale yooyu dama bëgg ñëw ñëpp nga bàyyi leen te lépp lu war ci kër gi nga wax ma ko ma def ko. mooy mhm. këram gi ne kër Mbaye Fall. kër Mbaye Fall papa ji ne ko loolu day métti ci yow mu ne ko métti na ci man waaye méttiwut ci yàlla. waaw ndax lu waayam yàlla moo la ko jox. Mm-hmm. maa ngi moom ñuy ànd ci koor gi paa di laaj mu di ko jox paa bi di laaj di ko jox bañ nekk suba gannaaw suba la korité ñu immigré kër gi kër gi pare ñëw faa dëkk. mu ne ko lii def nga ko te ci ambition yi nga amee woon pour def ko ak bëgg-bëgg yi nga amoon biir sa waajur bu góor mhm. moo tax tey jii li sotti waaw moo tax ma koy ñaanal jàmm bu baax nag lépp lu mu dugg yàlla suñu borom teg loxo amiin incha allah xam naa ne fu ko nit ñi di xool ak fi mu nekk sore na lool nag mhm, dëgg la waaw loolu daal laa la ñu mhm. jàkkaar la ñu dugg ci waxtaani waaw ba léegi ci ubbi kaay yaakaar naa ni euh, ki nga doon wax muy Boucher Ketchup miin nga ko bu baax ngeen dala ànd lu yàgg mën naa ni jamono yi ngeen di ànd jamono ji euh, di ngeen ciy dégg yu négatif daf leen di dal ndax suñ toll ni sa ak moom war na àdduna Euh, tey bu sa Ketchup sa diggante moom tey la ngañ ci mën a wax rek ak fan la ànd bi dooree. waa ànd bi dooree na ci géejawaay bu njëkk ba la woon loolu yàgg na ànd bi bi may xam buuse boobu xale bu ndaw la ma nekk xale bu ndaw ma xam ko mu digganteem ak laay bu ndaw muy ànd ak laay bu ndaw. ndeysaan mu nekk lu yàgg ca géejawaay. Mhm. ma nekk école de Mor Fadam kon géejawaay man it mais l'essentiel soo gisee euh, guddi yi nga tollu ànd dafa jafe. waaw li tax may gën a ànd ak moom. Mhm. mooy ñett yi saa yoo gisee ku koy def jàpp ko xarit. muy lan mooy ku am bokk ak yaayam. Mhm. ku am dimbale baayam. waaw ak koo xam ne chaque jour yaa ngi dimbale ay doomu di soutenir say rakk. kooku nit ku baax la. Mhm. te man du ma ànd ak kuy tux du ma ànd ak kuy naan mën naa dégg ci yow lu nekk nag muñ ko waaye diw day tux day naan du ànd ak yow. li tax loolu mooy chaque jour li may gis ci moom mooy Boucher Kétiop ku ko def référence di nga réussir ci sa àdduna mhm. ndax bi yóbbu yaay màkk jafe la yóbbu yaay màkk waaw bi taxaw ay rakkam jafe la taxaw ay rakkam bi taxaw jafe seen kër mu taxaw defar seen kër te lépp lu mu am danaa la sama jabar samay doom sama yaay loolu rek ngay dégg ci ay kàddoom mhm. kon kooku boo àndeek moom di nga am ay référence yoo àndeek moom te man loolu mu xam loolu laa xam lu ma am bokk ak yaay mhm. lu ma am soxna lu ma am ñu ma bokkal loolu laa xam nit nag mënoo ñàkk baatu ginnaaw munoo am lu rasulillahi amut. dëgg la nit ñi moom coow lee fi nekk rek mais nit balaa nga koo xas man dama jàpp ne képp ko ñuy xas ci àdduna bu mu la metti mhm. kenn rek moo war a mën a taxaw xas la mu métti la muy sa man de saaga ci internet xas ci internet garaaw ci man man kenn moo mën a xas mu métti kenn moo mën a saaga mu métti muy kooku moom ma xasee du ma nelaw. Mhm. bu ma saagaa du nelaw. Mhm. ndax man lan laa war a def ci àdduna. loolu bëggal sama waajur bu jigéen tey mu xas ma kon war naa xoolaat sama bopp mhm. yeneen yi ci bëri nag ñu bëri da gis koo xam ne nii ndeysaan ci ginnaaw clavier rek lay nekk waaw gën ko juddu gën koy waajur dàq ko liggéey gën njëkk ko investir ci àdduna mu taxaw xas la te du xam sax koo jum la xasee Sénégal la toll niveau boobu da ngay gis ko xam ne dalay xas saaga la bu ngeen wéetee boo ne ko yow eh ngeen saaga lu tax nga saaga du la wax ban cause tax mu saaga la mhm. kon yooyu yëpp ay détails la rek yu ndaw yoo xam ne nii ñu dugg ci waxtaan bi continuer am na solo ci waaru làmb lay ñëw ak yow euh, Albourakh production di structure boo xam ni man naa yàgg na ci waaru làmb xëy na demoon na kenn gisatu ko mu ñëwaat euh, comme ni ko français bi di waxee rek frappe fort moom Baye Ndiaye production wax dëgg yàlla nekk ca ndond la maam nekk ca njiit la tëgg ay combat yu bare bëri ci wàllu làmb mën naa ni mën naa ni bokk nañ ci promoteurs yi jël nomba woon fi mu ne ci wàllu làmb le 30 juin bi ñu bi ñu jëm ba ci le 5 mais bi nga xam ne génn nañ ko Eumeu Sène ak Sa Thiès ñoo ko tëggoon jëmaat tamit le 21 juillet xaw ma le 20 incha allah diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne tey mooy Tapha Tine. sama rakk ji dinaa la wax leen nga dégg Baye Ndiaye defagul dara ci làmb. defagul dara fi mu defagul dara ci làmb. Baye Ndiaye mu ngi nii di ma seetaan defagul dara ci làmb bis toogee moom boo gis ay ambition am. waaw defagul dara ci làmb mënoo fay tëgg Eumeu Sène mhm. tëgg fi Sa Thiès Eumeu Sène ne def nga dara ci làmb non non Baye dafay fekk ku mel ni ay Gaston Xaali Meng fekk fi ay Abdoulaye Diallo Ndiaye mhm. fekk fi ay Luc Nicolaï ñooñu jëlee mbër quarante mille ba cent cinquante millions neel Baye Ndiaye ñëw na ci coow day xale boo xam ne nii mantaal bi dafa baax gis nga làmb promoteur yi bëri nga ciy dugg di échec ñàkk a laajte rek tax ñu ñu lamb xaalis tëggu ko. ay pexe mhm. moo koy tëgg. ak conseiller te Baye Ndiaye am na pexe am na conseiller am na liquide te li ko ci dimbale mooy lépp lu mu mën a fay balaa mu cee fay cent franc dina laaj ñam war a laaj. Mhm. man xaw ma woon Baye dañ daan rombante rek Aziz Ndiaye moo ñëw ba ci man ne ma dama bëgg Baye day tëgg combat day dugg ci làmb. Mhm. combat Eumeu Sène Tapha Tine. Tapha damaa bëgg bu subaa nga ànd moom ci avocat boobu mu signé combat bi loolu moo ma booleeg Baye te keroog bi ma xamee Baye ba léegi revenir tuma dara Aziz ndax benn ñàkk a jege Baye wala ñàkk koo xam erreur la ci benn côté mooy nit kenn du ko tàmmal xaalis Baye du la tàmmal xaalis. Mhm, mhm. danay tàmmal fan ngay jaar pour mën am xaalis. waaw. dalay jàngal nooy amee sa bopp. dalay jàngal ne nit da ngay am jàngal ne la nit gëm sa bopp. Mm-hmm. man làmb bi ma fi ñëw yàgg na yàggul ba fi ñëw mënoon naa liggéey fu nekk mais je ma yor sama yëfu bopp mooy jàng ne nit nan lay def pour mën a mënal boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax nit tey jii mën nga koo ñaan mu may la su mën nga koo ñaan mu may la mais gannaaw suba mën na laa may jëppi la te gor day bañ ko ko jëppi. dëgg la moo tax soo gisee sama ànd ak bàyyi ma wax leen ne fi mu bëgg a jëm ci làmb saison ren bi combat yi ngeen fi dégg ñu ne bàyyi da koy tëgg yëpp mooy ñu jëm ci Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw te Gaye Tapha yëpp. làmb yi ñuy tëgg déwén moo mën combat yooyu. am na làmb yu ngi di préparé déwén. am na combinaison bi ñu préparé pour déwén. saison 2025 bi. moo mën combat yi moo ëpp coow moo ëpp pression. cey. te calendrier yooyu ñu ngi koy bind ñu ngi koy teg ñu ngi koy waxtaan suba ngoon. lii mooy jëm déwén combat yi dañ koy rey ren yi ñu ngi jëm ak moom déwén ci kàttanu yàlla te ambition boobu loolu moo mën fi gars yi bëgg yóbbu làmb mhm. làmb dafa jot ñu tel ko ne combat bi France la kii ak diw di bëri jee bii combat bi ñu ngi koy bëri ji unis yooyu dafa jot ci làmb surtout Baye Ndiaye ak Aziz dañoo créer benn benn challenge mooy dañoo xool tey jii ci boxe dañuy gis ne dañuy am cinq grands combats six grands combats mhm. rythme boobu la ñu jël indi ko ci arène bi waaw seetlu naa ko. su ngeen seetloo léegi ñu imposé amateur yi ne tey jii bu njëkk da nga daan gis amateur yi daan bàyyi ba 18h45 wala 18 rek mu daal di ñëw stade stade grand combat bi ñibbi. ñibbi léegi li ko dalee ci premier combat ba dernier combat ci alburax combat pression lay doon ndax day ay combat de taille leen di jaral mais boo xoolee combat Baye Ndiaye ay booy ndaw yi ngay gis ñu njëkk a bëri am na ñoo xam ne 1 million 500 lañ leen fay 2 millions. booy yi ni ñoom nekk ci ñoom am na ñoo loolu li koy waral mooy jox amateur bi nga xam ne nii boo xoolee journée la cinq bii ñu génn. waaw yi li ko dal ci premier combat ba dernier combat gisoo kenn ku jóg. Mhm. loolu li koy may promoteur mooy promoteur boo xam ne day waxtaan ak menager waxtaan ak amateur waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy chroniqueurs yi waxtaan ak boppam. Mhm. su ñu defee lii ak lii wala ñu def lii ak lii lan mooy gën ñu ne nañ def lii ak lii loolu ci la Baye Ndiaye di sukkandiku. Mhm. du dugg lum laajtewul. mu jëm nag journée boo xam ne nii amateur yëpp a ngi koy xaar. le 30. waaw le 30. boo xam ne nii nag làmb du ko gaaw fàtte. ndax xam nga le lu ci garaaw mooy diggante Ama Baldé Gris Bordeaux Ada Fass Guy gi. Liss ah, Ndiago Zos Liss Ndiago Zos waaw ah armée ah armée ak ndigal armée ndigal. ah des na gàkku bu laal waaw. des na ba léegi ñoom papa. maa ngi cay dégg ba Mathiak euh, Niang Ballo. wala loolu 21 ba la jëm loolu loolu ca Balla Gaye la jëm. ok ok combat Balla Gaye la mhm. mais l'essentiel lii problème bi mooy gis nga combat Ama Baldé Gris loo ma ci laaj rek ñu waxtaan ci tuuti combat wu guy gi Ada Fass mën nañ ciy ñëw ak yeneen combat yooyu maa ngi la ci déglu. balaa ñu ñëw ci combat yooyu briefing ci Ama Baldé. Mhm. jamono ji ci wàllu làmb ku ne xam na ni euh, gaynde gu mer la fi mu ne ci wàllu làmb ndax jóge na ci combat boo xam ni bokkoon na ci meilleur combat wala bokk na ci meilleur combat ci carrière mu ñàkk ko mu Ama Baldé jamonoom ji ci wàllu làmb. Ama Baldé meilleur combat da la dem ci carrière am. waaw combat boobu ci la indi état de forme bi gën a bon ci carrière am muy contre Modou Lo. Ama Baldé daa indi daa bëri Malick ñaa nekk njar ndéem. Mhm. Ama Baldé daa bëri Tapha nekk njar rayante ci carrière ba war a digg daane ci làmb ba rek Modou Lo kenn ko moo tax le retour de mbër moo xam nii ci làmb. Mhm. mbër mu nekk mën nga koo dàq bëri waaye li Ama ci géew benn mbër bu ko yor. sañ-sañ ba. culture la koy téye ci loxoom. tey. Ama Baldé kenn du moom mooy mbër mi ci Sénégal nee naa la kii mën na ko gën a nekk professionnel. mën nga ko gën a nekk athlète mën nga ko gën a nekk lépp waaye lépp lu war loog làmb rek Ama Baldé la ko gën a nekk mhm, mhm. ñu boole ko nag la Bordelais Gris Bordeaux mi nga xam ne nii fas guddi yi ñu toll fi may wax ak yow koor ga ca combat Lac Rose fils de Balla ba léegi Gris Bordeaux mu ngi contact boobu ba léegi mi ngi contact ba léegi mu ngi écurie Fass di contact Ama bi mu jógee pare léegi gisoo ko ci benn écran mu ngi ci diini di ray boppam ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar seen deuxième jàkkaarloo wala seen premier jàkkaarloo mook ki nga xam ne ni tey jii. Mhm. mooy Gris Bordeaux ci kanamu alburax muy sam samedi ci guddi 2STV yi. mais Gris Bordeaux dafa am lu Ama Baldé amul dama ko gis ci moom muy dafa am ay accompagnants yu am solo ku ci mel ni tey Lagros bi nga wax sànq Forza Serigne Ndiaye numéro 2 ba ci ñeneen ak ñeneen. dafa leen di dafay daf leen di jël di contact ak ñoom te Ama Baldé dafa mel ni. manqué na ay Ama Baldé de partenaire yoo xam ne kenn xamu ko. mais yooyu nekkul ñuy wax ndax nekkutoo ñuy sax dëkku Pikine ñu ko ëpp ñu koy jàppale ci contact dëkku Pikine. te yow xam nga leen. xam naa leen waaw ok mais l'essentiel Ama ko dal. Mhm. dëkk bu Abbas Ndoye nekk ba Safa Gueye nekk fa. te ah. Amadou Kati Diop nekk fa. ndaanaan yooyu yëpp nekk fa Gris Bordeaux Fass dañ ko sas combat bii Gris Bordeaux jëm du combat bu Gris di caaxaane combat bii Gris Bordeaux jëm du combat boo xam ne Gris Bordeaux warta indi koofur. combat bi Gris Bordeaux jëm lépp lu làmb laaj Gris Bordeaux da ko war a indi la 30. taxawal foofu dama dégg nga ni keroog sa benn live combat bi moo ko mën a may xaalis waaye combat bi itam moo ko mën a xañ moo moo ko mën a xañ xaalis. waaw Gris Bordeaux dafa dugg ci carrière am ba carrière am sori. Mhm. nga naan mu ngi ci fee carrière mu gis bunt boo xam ne war na ca mën a xaalis. mooy Gris Bordeaux dafa dem ba dernière fin phase ci carrière am mu jël Ama Baldé te bu daanee Ama Baldé Sa nga fa Franc nga fa rëg-rëg nga fa mën naa laa limal Alioune Seye numéro 2 nga fa mhm. mën naa laa limal juróomi xale ba juróom benn ay moromam yoo xam ne nii kum ci bëreel da ci am xaalis te la dëggee rek fi amul combat léegi nag muy bëri combat boo xam ne nii di dajanteeg ndaanaan boo xam ne làmb kenn weddi lu ko lim doon Ama Baldé du caaxaan ci làmb booy booy bu ñu doon tey te bu fekkoon ne tey ji da woo nit nit. Mhm. ne ko dama lay yónni ci làmb ci mbër. nga woo nit nga fëgg ko nii. Mhm. ne ko kaay ma la ci mbër bu tudd benn bu jógee ci Ama Baldé la jëm. lu waral loolu. ndax mbër la da ko doon ñaari yoon nekk doomi Falaye Baldé. Mhm. ràññee ci làmb kenn utalu ko yoon. Ama Baldé dafa boole daan ñoo xam ne ne boole leen daan yombul. dëgg. ma daan Papa Sow maa daan Malick Niang daan Tapha doy na palmarès ci làmb mhm, mhm. dañ ne la Ama li gën a métti ci carrière am da ko réussir li gën a yomb ci carrière am da ko da ko raté muy contre Modou Lo waaw waaw <laughs> ndax Ama mu simmee ko contre Malick Niang a dar gémmiñ mu simmee ko contre Tapha li Tapha Tine di nekk géant mu ëpp ko mhm. mu liggéey indi masse muscle boobu koŋ nekk mbër njarndeem xajam lool nga gis ko xam ne kii tey daa bëri si mais Ama Baldé moo jàkkaarloo contre mu rafet lool kooku des na Ama Baldé du mi rafet ci géew. warul rafet. déedéet waru ko. bu paree dëgg-dëgg doo ko ñemee xool. Ama Baldé bu ngem boo dëgg dëgg dëgg dëgg bu la da yaakaar ne comme yooyu fas yi takk moom moo yaakaar moo la romb. mais Ama bi gis ko tur Modou Lo bëggatuñ gis ci làmb loolu Pikine sax nelawuñ noonu. ndax fi mm-hmm. Pikine jëm la. te dañuy dajante écrit boo xam ne nii fa la néegu ndeyu Ama Baldé dëkk. waaw. waaw Ama Baldé yaayam moo Gris Bordeaux daanaka sorantewuñu. waaw maa ngi koy dégg sax mu naan su ma su ma neexee fanaan Dakar su ma neexee fanaan Dakar su ko neexee fanaan Pikine. loolu am na. ndax ndeyam ci askanu lébu la bokk. muy champion boo xam ne nii nag làmb da ko namm ndax Pekaay mbay xam nga xam nga xam nga xam nga la 30. Mhm. sur internet bu nekk war na cee reyante liggéey. le 30. waaw ndax dañuy jël Ama Baldé guy gi boole leen benn làng ci mikaay jël Ada Fass boole ko Gris Bordeaux benn làng ci mikaay cey jël Liss njaago indi ko ci côté bi nga xam ne fa guy gi ak Ama Baldé nekk jël Zoss yóbbu ko ci diggante Ama Baldé ak guy gi te fi may wax ak yow nii. Mhm. arène nationale bàyyi mu ngi pare spectacle boo xam ne nii te jour la 30 bu Pape Diouf mooy def live bi. Mhm. ñu ñëw Ama Baldé fi làmb jëm moom moo tax Gris Bordeaux soo gisee lëlu bii mu lëlu Fass tënk ko nangatuñu mu pénétrer nangatuñu Gris Bordeaux nga gis vidéo am mhm. dara am fiitewul mooy fi Fass combat bi toll ci ñoom combat Ama Baldé carrière am ba mu daj mu ngi doog a dugg ci combat boo xam ne nii da ko war a gagné far force moom Ama Baldé Ama Baldé combat bi amul lu mu ci war a négocier ndax Gris Bordeaux dama ko dalal ci sama live mhm. mu ne ma fadam bam mu ne ma Ama Baldé ñëmatu suul tànkam xeex comme man ci wàllu jaxaseeg waxtaan ci làmb laay topp. nga laaj ko bu ko defee. ma ne ko Gris Bordeaux bu Ama Baldé suule tànk mu ne Pikine kuy takk ngeem bu ñëwut a conseil Ama Baldé ma gëdd Ama Baldé fekk ci biir géew. ma woo Ama Baldé téléphone INSEP de Paris. Mhm. ne ko Gris Bordeaux nee na bu la gëddee nga suuf tànk mu dóor la nga daanu. Gris Ama Baldé dama barki Serigne Saliou Mbacké sama combat am Gris Bordeaux am une minute. du mat une minute waaw. waxee nii. mu ne ma Fadam mu ne ma waaw mu ne ma soo waajee Gris Bordeaux bu ñëw arène nationale dinañ xam ne sama diggante ak Modou Lo damaa juumoon te nag pikin Pikine ñëw waaj. Mhm. ndax Pekaay Mbay mooy indi Ama Balde te Pekaay bu toogee fee bu sàjjee Pekaay lu mu répété des na. la mu tëggoon keroog la 5 de kenn du ko fàtte moom. mën naa indi lu ko raw ndax tëggkat mën naa tëgg loolu te fecckat bi du ko fekk te Pekaay lu mu tëgg Ama Balde fecc ko. dëgg la. miinam tamit yàgg nañ waaye kam yi deganteel nag mooy coow li borom soow ma de cinq cinq rythme bàyyi dem ba cinq cinq birim gi géew yaay Awa ñooy indi Gris Bordeaux mu làng ak Ada Fass te rakk ci ñoom bàyyi dem mooy bàkk Ada Fass kon Ada Fass dañ koy bàkkal Fass ba mu sax mhm. mu jox Gris Bordeaux mu àggali kon de làmb ji dina dina dina sa Fass kon la cinq bés bu nekk am na ci làmb xam nga Fass Ndakaaru mhm. damaa dalal Moustapha Gueye bërki Demba Ndiaye mu ne ma combat wu aada Fass bii ak guy gi mhm. bu laajee Fass récupérer aada Fass muy contact si biir Fass sax dañ koy def ndax combat bi làmb côté gox la kon guy gi nan la war a waaje aada Fass guy gi rajo Faram. waaw man aada nga gis man aada Fass nga gis gannaaw ba mu jugee France bu màgg. lii ma leen wax ne xaw ma ko wax de maa tiim Ada Fass yaramam. màgg ci wàllu doole. màgg na ci doole Ada Fass du ko jéggaani ndax du ko judduwaale. dëgg. maa ñëw ba ci Ada Fass na ko booy màgg nga de. Hmm. kaa leen wax leen lenn Ada Fass mbëru ndakaaru la. waaw. dama ne la am na mbër yoo xam ne nii bay laa yow mi dañuy jëriñ làmb. waaye am na mbër yoo xam ne dañuy jëriñ ci làmb Ada Fass mbër mi jëriñ làmb la ndax phénomène la. Mm-hmm. Ada Fass bi ma xoolee Ada xool ko xool yaram bi xool xale bi mu màgg lool mu xool gëm-gëm bi ëpp doole ji li ma gën a yéem ci Ada gëm-gëmam ak bëgg a nekk mbërëm mu ëpp doole yi Ada Fass loolu rek moo ma gën a rey ci moom. mais que pare na réellement El Hadj Fara. waaw noo pare des na. xool naa ko mais adafas mu des na finition mbër mën ngaa indi doole indi cawarte. Mhm. indi muscle bu baax mais da koy togg. Ada Fass combat bii du komba bi muy préparé moom kese. Ada Fass bii da cee war a contact ak ñu ko ëpp doole juróom-ñaari yoon. Ada Fass combat bi da cee war a contact ak ñoo xam day am problème pour daan leen. mais est ce que am na loolu parce que Fass Benno gi mu ne nag ay. ay ah. ak Fass écurie Fass benn lañu. xanaa mu dem fa waaw. kaay ma xamal la ñaari baat. Mhm. lamb amul kum dul jaaral ay mbër. lamb mbër mu nekk sa adversaire nag na mu mel noonu ngay préparé ci ay mbër Ada Fass combat bi dafa ko waral mu jaral ko mu contact ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2. contact ko mel ni Gris nga xam ne pour takk ko day nekk problème. Mhm. di imposer Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye di ko dëbb ay col di ko pousse muy résister bu xëyee contact soo ba ngoon du mën a daan Serigne Ndiaye numéro 2. xëy contact bu xante Gris bay bëgg a dee te du ko mën a daan bu ñëwee dañante ku mel ni PAM doy mu koy song di ko jaar fu nekk. Mhm. te Fass am na benn phénomène bu Fass di làq. muy kan. du ma ko wax. Alaaji Faram wax ñu ko. drapeau chef de l'État daaw daaw jéeg ko la ko Moustapha Gueye gisoon mu nga Fass. maa ko <laughs> waaw. bande 40 ans. moo nga fa. cey. moo nga fa faas koy jël tëj ko di ko defar te kooku bis su ko faas génnee. Mhm. boo yu bëri fii dañu am problème. moom bande 40 mu ngi ñëw mu ngi ñëw. mbër mu xees la de mu jëm nag ci guy gi. waaw xam nga guy gi. Uh-huh. li gën a jafe ci làmb moo nekk ci moom. muy lan. dafa am mbañ. dafa am lu muy bañ moom guy gi. waaw mbañ. ok. waaw boo seetloo carrière guy gi yëpp combat yi ñu ne guy gi da koy daan yëpp da guy gi da koo daanu combat yi ñu ne guy gi da koy ñàkk yëpp da koo da koo daan seelu naa ko dal na ko digganteem ak Siteu waaw guy gi danaa mën combat tey ngay dee moo tax Ada il faut mu xam kan lay dajanteel mu ngi dajanteeg mbër mu mën géew mbër moo ne yuuxu du ko dàq ndax daa mhm. dajanteeg Siteu mhm. Siteu këpp ko mbooloo ëpp sept fois dëgg mu nekk à ci géew mu dajanteeg Zarko ko nekk ndaanaan mu registré ko dajante ak Ama Balde bu Pikine di neex mhm. dëgg waaw mu registré Ama Balde registré Boy Niang Boy Niang daan ko mu jël ama neex daan daanaan li bëri mhm. kenn gënu ko rafet palmarès waaye man su ma amoon li may wax guy gi laay waxal loo koy wax dafa am cër ci làmb guy gi dafa am fu mu toll ci làmb mhm. te foofu mu toll ci làmb moo fa mën a delloo boppam xam nga làmb day tollu guddi yoo xam ne nii mbër fu mu bëgg àgg mu fa yóbbu boppam du xar ku fa yóbbu te guy gi jot na fa mu tolloon ci làmb mu dellu fa boppam. Mhm. ndax champion la ba nekk mbër jëfee moom moo def boppam mbër kon bu bànneexu jotee na rey boppam pour mën a bànneexu ci làmb te guy gi fii mu toll fi la xaalisu làmb wuy bu buy si guy gi ndax révélation yi nga xam ne dañoo jaral làmb di leen fay xaas yëpp. Mhm. boo leen koo bëgg a bëreel dañu naan guy gi te nag Ada dafa ñëw teg ay pexe yu daan guy gi. mais guy gi laa xàmmeetul Alaaji Fadam. waaw combat bi mujjee bëri diggante ma rëg rëg. waaw kenn xàmmeetu ko. waaw xam nga guy gi dafa am lu mu tàmbalu amateur yi. ñu indi doole indi sañ-sañ kenn du ko jëkk a jàpp teel dugg ci làmb gis nga luñ ko ñàkk a xàmmee ñàkk a xàmmee ñàkk a xàmmee. Mhm. Ada na xam ne kii muy dëgganteel tëlewul géew. waaw. Ada na xam ne kii muy dëgganteel mbër kaamil la. Mhm. na xam ne kii muy dégganteel ñàkkul ñaan ci làmb dëgg waaw. ci guy gi nag ci boppam mooy pare wala mu ñàkk pare. moom ci boppam lay des. te gis naa ne moo tax signature samedi dimanche samedi bi yàkkamti naa ko loolu. maa la ko gën a yàkkamti. waaw ndax man dama bëgg a gis Ada Fass ak guy gi ma xool lan la ñuy wax ndax Ada Fass barki dem dañu danaa guy gi alburaax. Mhm. dem na ba jege guy gi natt ko guy gi sutu ko ëpp ko gënu koo large waaye lan la ko guy gi war a mooy doole yax ak expérience ndax guy gi mu ngi sóoraale loolu. Mhm. dafa am combat boo xam ne dama ko waxoon barki Demba Ndiaye amateur yëpp bàyyi ñu ci xel. man leen Eumeu Sène moo dàq bëri Sénégal waaye Eumeu Sène carrière am di ko xeex. waaw waaye digganteem ak Sa bi lay doog a bëri combat mental. guy gi yëpp combat ak deere woo ci carrière am mu ngi doog a bëri combat boo xam ne combat xel la war a bëri. xel la ko war a bëri. waaw waaw guy gi combat bi lim ci war a mën a def mooy uti doole ak contact lu bari. ak teg stratégie xale bi nii laay bëri moom muy combat boo xam ne àdduna bépp ñoo ngi koy xaar. Mhm. lu tax duñ ci mën a développé 100 pour cent rek mooy dafa lu may xaar ci signature bi ndax damaa yàkkamtee gis Ama Baldé ndax pël bi guddi yi nga toll forme bi moom la Pikine yëpp di waxtaanee Gris Bordeaux moom am na forme waxatuñ ko. Mhm. le Bordelais guddi yi jekk na lool. te Fass koy ëmb indi ko. Mhm. ma jàkkaarloo jàkkaarloo guy geeg Ada Fass war a jàkkaarloo Liss Ndiago le phénomène ak Jos. ak Jos mi nga xam ne